alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah kon tey ñu dikkaat ci kan mooy malik ibnu anas malik ibnu anas mooy kan waxoon nañ ci malik ibnu anas ba egsi ci limu mu ci ay téere ak ni mu bindee muwatta ak muwatta ñaata hadis la woon ak naka la ko wàññee bali ci des toll ni mu toll loolu lépp nettali nañ ko léegi nag asrata ala fukki junni addis la woon mu di ko wàññi ba mu des juróomi téeméer addis ak lu topp tey nag noo ngi dem ci jàngal jàng ci Malik ñan la jàngal imam Malik nag ñi mu jàngal mu leen suree na xam ndax Madina gi mu nekkoon nit ñi di màbb di ko fa fekk si di jàng ci moom loolu moo tax waaye nag danañ leen waxal ñi gëna siiw ci taalibe iliman malik <clears throat> taalibe iliman malik ki ci gën siiw ci jiitu ga moo di al imam muhammad ibnu idris al shafii ñu gën koo xam ci imam shafii kooku nekkoon na ndongob imam malik doon na jàng ci moom ginnaaw bu imaam Shafii wéyee ku ñu wax Abdurahman ibn al atqi al-Misri ci moom ngeen gën ko xam ci ibn al te daanaka bu ngirum Malik asaaro ba ci fii ci Sénégal ibn al-Qasim def na ci ab cërëm ñetteel bi ginnaaw Abdurahman ibn al Ashhab ibnu Abdul Aziz comme kon itam ku ñu wax Ash'ab doomu Abdul Aziz dëkk Misra jàng na ci moom ginnaaw moom kese ñeenteel ba mooy Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar al-Jahmi wala al-Ju'ani moom itam jàng na ci moom juróomeel ba ku wax Mughayrat ibnu Abdurahman al-Makhsumi jàng na ci moom ci boroom xam-xam yu mag juróom benneel ba ali ibnu ziyad al al absi jàng na ci moom juróom ñaareel ba abdullahi ibnu wabin al xorashi jàng na ci moom ba abdullahi ibnu maslamat al qanabi jàng na ci malik bu ñu noppee abdul malik ibnu abdul asis al majishun jàng na ci moom bu loolu jàllee asad ibnu furaat mbokk ci bani sanaan jàng nañu ci jàng na ci moom ñooñu <clears throat> moo ñi nga xam ne jàng nañu ci iliman malik léegi nag ñu ñëw ci natt bi ko daloon bañ dóor ko ci natt bi nga xam ne daloon na ilimaan malik ba ñu takk loxo ya dénd ko di ko dóor ba mbagg ya wekkeeku ba bu deeti julli du mën a yëkkati kàbbar yi ne allah natt boobu nii la demee ibnu farxuun almadani nee na jaafar ibnu suleymaan moom mooy ki dooroon ilimaan malik ba mbagg yedde bo waatee te moom dafa nekkoon ab gouverneur ci Madina li waral mu dóor mooy ku ñuy wax Aba Jaafar al ma nekkoon kilifa gëj te jooja jamono dafa tere woon imam malik ne ko addis boobu ngay jàngale muy laysa ala mustakri in talaaqun bàyyi ko booba dañoo waxoon ne euh, fase ku ñu forcé mu fase ci kaw force fase ma dëggut loolu nag politique daf cee am ndax li waraloon coow loolu mooy bu ñu waxee ne pasem ku ñu forcé pasem a dëggut kon dañuy wax ne palak ku forcé nit ñi pal ga dëggut te kon Aboubacar ak palam du dog politique la ci seen diggante bu xóot boo xam ne gëstu histoire moo la koy tax a xam léegi nag ba mu ko nee talaaxul mustakrah bul waxati ne dogut dafa bañ ne moom déedéet ku ñuy forcé ci waccal daal te ñee na koy forcé te soxnaam néew ko wàcc ma dogut ba mu ko teree nag ba noppi dafa yónni ab agent secret na ko fekk ko ca mbooloo fa muy jàngale rek nga laajaat ko ko ba xam ndax dina dina dina dina dina ne dogut am déet léegi nag waa ji ñëw ca mbooloo ma laaj ko mu ne ko ah ah, ah nit buñ ko jàppee dóor ko ne ko wàccal si soxna si forcé ko mu wocc ko dogut te loolu buntu la boo xam ne boo ci xiyaasee rek da daal di gis ne ku ngàbb say fetal ne nit ñi farlu far force sa pal nga dogut bu dee ci lislaam sa pal nga dogut duñ ko nangu loolee nag moo juróon dóor ya am na itam ñu wax leneen nee nañ jaafar ibnu suleymaan moo ko tere woon riwaaye boobu te riwaaye bii ñi wax ne jaafar ibnu suleymaan moo ko tere woon ibnu farxuun moo ko nettali nee na dañoo dem ci jaafar ibnu suleyman ne ko inna ula yara aymaanu bayatikum bi cheyin fa inoo yaqusu bi adisi adi saabit ibni ahnafi fi talaaxi al mukri ili annahu dañoo dem ci buurub jullite yooyu jamono ne malik mii reconnaîtreul sa pal gi ndax li tax reconnaîtreul sa pal gi moo di moom addis bi saabit ibnul di nettali ci passé te moo di passem ku ñu forcé dëggut da koo gëm di ko jàngale te passem ku ñu forcé bu dëggut kon palu ku nit ñi du du du su ko nangu te booba gaa yi xam nañ ne dañuy forcé di fale ak di forcé di fulee ak taxaw ne far la force diw dina falu mu ci dara ba léegi dañuy wax ne muhammad ibnu abdullahi ibnul asan al alawi mi daan tuddee al mahdi jamono jëm jóge di woote révolution imam Malik daa waxoon ne jaayante gañu jaayante ak aboubacar wérut ndax dañ caa forcé nit ña wax nañ dëgg nag ndax dañoo wéet ci benn kër fale ko fa ba noppi door ko yéene nag ne Aboubacar la ñu fal mi ngi ci jumaa ji toog na ñëpp ñëw jaayanteeg moom ku jaayantu moom ñu def nii ku jaayanteeg moom def naa te loolu wax yàlla dëgg yàlla jaayanteeg ikra la ku ko wax nag ñu ne def si àgga léegi ñii nañu loolaa tax ñu dóor Malick Malick daal nee na pasem ku ñu forcé pasé ma dëggut te pasem ku ñu forcé bu dëggut ku dijju ci kanam nit ñi ne kaay leen fal ma ci force buñ la falee pal nga te kon pal ak Aboubacar mën naa ñàkk wér ndax fañ ko njëkk a fale ñëpp fekkewuñ ko te fañ ko mujj a ay yet lañ ci gàlloon foofu sax laa yem ndax bu ma ëppalee wax lu ëpp ba léegi ñu wéy ñuy warante kay mooy ci war ci jan jamono lañ ko dóor waaye dóor yi moom am na ñi ne nañu ci xilaaf ak abi jaafaril mansuur la ñi ne nañu ci xilaaf ak Haroun la waaye nag dóor ya moom nettali bi ci gën a wér mooy nettali bi wax ne ñi ngi dóor Malik ci xilaaf ak abi jaafar al mansuur léegi nag ñaata yar lañ ko dóor ñii nee nañu diggante fanweeri yar ba téeméeri yar lañ ko dóor nee nañu bañ koy dóor dañ ko taxawal takk loxoom di joor bi takk ko ci benn garab takk loxo càmmoñ bi dénd ko dénd ko ba takk ko ci garab dénd gu mitti googu ko dénd nag moo debbuwaate mbagg yaa léegi nag loola moo taxoon loxo yi ne li mbiriñ wàcc mu la kàbbar yëkkati loxoom julli loola it taxoon mu bàyyi jàkka ja jiitee tut te bañ ko laajee da leen ni ina minal umuri maa laa yubayyan am na ci mbir yoo xam ne di su ko leeral ndax lan ah, ndax nam demee Mansuur nag ba mu ajee moom mi nga xam ne moo fa doon Jaafar ibnu Suleymaan ba mu ajee ba dégg mbir ma nam demee dafa woo Malik ne ko il faut nga fayu ci Jaafar ibnu Suleymaan ndax daf laa dóor Malik ne ko maa ngi muslu ci yàlla may fayu ci Jaafar ibnu Suleymaan nii te mu bokk ci giru giru bani jaafar doon mbokkam yonent bi man bañ may dóor bépp yar boo xam ne nee na sama gannaaw gi tiw def naa ko àddiya ndax lan ndax ki may dóor lu dafa doon mbokkam yonent bi bañ ko dóoree ba noppi nag dafa xëm ndongo yenu ko yóbbu ko ca kër ga ba mu xëmmalikoo nit ñi wër ko mu ne lii lu mu ñu ne ko yow dañ laa dóor ba nga xam ñu di la fii mu daal di wax ne maa ngi leen di seere loo lu baal naa ko ndax daa bokk yeneen loolu nettali nañ ko ku ñuy wax danaa war di nag nee na man bañ koy dóor fa la ma fekk waaye yar bu ñu ne mbipp mu ne allahuma ixfir la um fa inna um laa yaalamuun mbipp allahumma ighfir lahum fa innahum laa ya'lamuun mbip noonu la ko doon la koy def di ko def ba mu tudda wax mu daal di xëm waaye yar buñ ko dóor rek mu ne yàlla jéggal leen dañoo xamut ñu dóor mu ne yàlla jéggal leen dañoo xamut mu dóor ñu yàlla jéggal dañoo xamut noonu lañ na ñi ko dóor ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci at ca gàddaay léegi nag malik daana wax ne duribtu fi ma duriba fii muhammad ibnul munkadir wa rabia wa said ibnul musayab buñ ko laajee da leen di wax ne ah man de liñ ma dóore moo lañu dóore woon muhammad ibnul munkadar doore ko rabiatu doore ko sa bi saïd ibnu yeb kon malik rek du moom moo waxoon ne fasem ku ñu forcé dogut am na ñeneen ñu ko doon wax te politiciens yi nag lañ ci jublu woon ba tax ñu leen di dóor mooy bu ñu waxee ne pasem ku ñu forcé dëggut da nga ciy dégg ne palo palu ku forcé nit ñi ci doole pal ga wérut te kon nee nañu Aboubacar palam du wir ndax dañoo woote ca jàkka ja ne ñëw leen jaayante nañ ci saqifatu ba ni saayida ba noppi de waaye nag jaayante googu mooy wéy man shaqa yaddu taati fadribu unuqu man jaakum wa amrukum waidun wa arada an yufarriqa baynakum faqtuluhu daal di fay def wax fa daal politique daal di ngeen ko xamee loolee nag moo taxoon ñu ne boobu addis kenn du ko fi wax parce que am ku ñu te wax dëgg dëgg dëgg illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman boo ko gisee nga war a xam ne kuñ forcé ci fase sa jabar te àndoo ca boo ne fase naa ko it wérut te itam illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mën nga cee dégg ne ku ñu taaj ne kaay leen moom ci force jaayante ga wér ndax lan la ikraha fi diin waaye nag ah ko wax dee ku noppi dee kon ñu nekk ci sukuraat rek lu ñu dee du ñu dund ba léegi Omar Abdou Aziz nee na man de ñëwuma kenn man de ñëwuma kenn ku nekk ci lislaam te amoo ci nattu ba ñu dóor nga am ci ay lor ñeewuma la ndax lislaam ku ci nekk il faut nga am ay nattu am ay ku ñu wax Dayyaani nag moom nee na Malik ginnaaw ba dóor yooyee jàllee da caa gën a màgge dañ ko caa gën a respecté dañ ko caa gën a màgg màggale ba mel ni yaram yooyee daal ay garaat dañ ko doon takkal la yal ko yàlla yërëm te yàlla nanu yàlla jariñ ci xam-xamam foofu la ñuy yem tey buñ del ci waatee suba ñu wax Malik kañ la faatoo na mu faatoo